yam si daal di dem sapeur dem police boo sapeur déclaré bon pour sa sapeur ne ma bon naa dem police après nag police la la yàggee waaw. lan la la demee ci xam. si li nga ma xam ah man dama jékki-jékki gis ko mu tëdd. loolu bon pistolet la yor euh, dóor na ko bal. bon nee na xale bi mu doon kii loolu la. loolu waaw ku nekkoon si biir oto bi beneen oto bi. boobu fartam loolu. non ñoom ñëpp ñoo bokk fu ñu lee moom si lavage bi la nekk moom këli menuisier bois la. waaw man maay patron. waaw. waaw mooy papa jaxa bi waaw bon environ ay 17 ans âge am nag laa xamul exact ñaata at la waay yooyu moom la war a am waaw ku baax la moom ku yaru la parce que bon si si ndika daal la kii parce que da doon jëlee añ nii demoon doon jëlee añ waaw pour atelier bi fa la demoon doon jëlee añ xam naa diggante bi bon lañ ne si la taxaw yor appareil foto bon mel ni ku koy photo xam naa bal bi rëcc dal ko parce que man loolu laa dégg. bon appareil kii la yor téléphone am. jàpp waaw moo yor téléphone jàkkaarloo moom lañ lu koy photo. Ah, waaw kële nag yor pistolet am na booy. non man man xaw ma ban pistolet la loolu moom xaw ma ban pistolet la. mën na ko jëm ci bopp. waaw si bopp la ko man dégg naa waaw man dégg naa ko bon après bu ma déggee tel pour man oto la wala kii après par la lañ ma ne papa daanu daanu ma def ne courant la ma daw coupé kii bi téléphone kii bi courant bi bon mu ñëw na pistolet la ko la ko dóor bon par la suite laa woote 18 ñu ne bon. kon kon borom oto bi da doon raxas lu bàyyi fi oto. waaw da doon kii raxas oto bi jël pistolet bi. da doon raxas lu bàyyi fi otoom. Oh. si oto bi nag si la pistolet bi nekk. booy bi jël ko. bon waaw mel na li ñuy fort defe naa parce que waaw man loolu lañ ma wax waaw. man Jibi Ngom laa tudd. Jibi mm. man maa yor métallique bi ak bi. waaw beneen kii bi beneen jibi bi mooy Jibi moo doon patron moo yor bois moom menuisier bois la doon liggéey.